association des vétérans des Parcelles Assainies mais père yow yaay kan. man président association des vétérans des Parcelles Assainies. yow ban poste nga doon dugal. man neuf nga dugal. dama dugal bu baax dama dóor ba fëq kaay. laaj laaj sa papa. waaw ah oui. unième fois Papa Abdou Fall tuddee waat leen drapeau bi muy kóllëre seen diggante ngeen ñëw gis ni stade bi mel ngeen gis ni stade bi mel tey lan ngeen ci wax. mais kontaan nañu trop sa baa ngi lii la ñu prévoir lii mooy neuvième édition donc Pape Fall pratiquement depuis que mi ngi si lamb ji alors daf ñu mos a sóoraale. on se rend compte que day gën a neex rek la preuve bi ñu bii mbégte rek lañ si am bu baax a baax a baax. kuy xool ku bëgg Parcelles Assainies soo gisee Pape Fall jàppal bés muy def yàgg na ko def du du daaw du du ren te xam naa di incha allah déwén dina ko defaat. kontaan nañu ñu ngi ñaanal aussi ñi nga xam ne dañu bokkoon ci ñun yàlla jëlee leen fii. ku mel ni suñu président d'honneur Mandione Mbaax Mandione Anne ak Ndiène Rama di ñaan ñoom ñëpp yal na leen yàlla xare àjjana attention Ondu am na lu mu a def Mor Fadam bañ na ñoom ñaar suuf Mor wër na ndombo Ondu wër na ko ndombo daan na ko Mor Ondu Mor Fadam daan na Ondu Mor bi leer na amul werante mbokk yi ñu nekk dimanche 15 mai 2016 ci stade Iba Mar Bébé Diouldé Baye Ndiaga drapeau vétéran Cambérène Baye Ndiaga moo nu wan càmmoñ xaw a jàkkaarloog ñun Bébé Diouldé ñu wan ginnaaw xaw a nekk sunu càmmoñ Bébé Diouldé Baye Ndiaga Bébé Diouldé dugg na si garde bi door na gauche droite attention Bébé Diouldé Baye Ndiaga ñoom ñaar jàppante nañu Baye Ndiaga ak Bébé Diouldé Bébé Diouldé nga door ci suuf bébé attention Baye Ndiaga door na amul garde Baye Ndiaga Bébé Diouldé attention. ñoom ñaar ñi ngi xeex la ilaha illallah door na ko mu daanu door na ko mu daanu door na ko mu daanu Baye Ndiaga daanu door na la daanu eh Bébé Diouldé Bébé Diouldé ngi door na ko mu daanu eh Baye Ndiaga Baye Ndiaga n'a rien compris Thank rëbës li ñuy def ci ginnaaw ngi nañ jàppale waat làmbage bi gars yi nañ dooleel xale ni mu rafetee xoolal ni làmb rafetee age bi gars yi xoolal lii Boy Niang ak Double Moteur arbitre bi sifflé na mbokk yi drapeau gis nga ñaari xale yi attention Double Moteur Boy jël na Boy Niang Double Moteur jël na ko daan na maa la wax lii jël na ko daan na ko jël na ko daan a ngi doomu Rebeuss baa ngi xale baa ngi daan na ci yoon Double Moteur le champion de Rebeuss Double a ngi bëre na ak Boy Niang bëre bu ko jël bu rëy eh xale baa ngi Double Moteur a ngi Double Moteur a ngi xale baa ngi jërëjëf euh, Mamadou Mbaye jërëjëf Bruno xale yi dem làmb stade Iba Mar Diop gis ngeen fête bi yëpp sport la waa ñii lii ku ni bu mu am cim réew waa yow yow nun la war a def yow lii di am samedi di am dimanche di am ci région yi dëkk boo dem mu de am fa nga ni nag bu mu amati nit ñi ñi daa toog yow ngay def li nga bëgg yow yow daal yow yaa war a def yaa war a liggéey yaay borom xam-xam yaay takk karawaat di lakk francais après loolu doxalul am réew ku nekk day xool lay jariñ ca la moromam di def ñu jàpp ci ndax réew ma dem waaye je suis intellectuel ak en tant que intellectuel ak nangam nàngam sonalaate la loolu nañ koy xam nañuy jàpp ci làmb di ko xool di xool ni nga xamante ni noonu lay dem mbokk yi double moteur félicitation vraiment félicitation xam nga moment bi moment bi jot na def nga ko bu ñu ñëwee ci bébé julde bébé julde na nga gën a entraîner am naa mbooloo rek du bëri mu loolu yow ak double moteur yëpp a ko bokk yow bébé yow julde ak double moteur am naa mbooloo kese du bëre am naa mbooloo ba pare da ngay continuer di leen def contact xale day def contact boo dee def contact di am dara mais boo dul def contact doo am dara bëre songoo la. ñu fàttali anniversaire Luc Nicolas numéro 2 takkusaanu caaroy géej takkusaanu caaroy géej nag lépp cosaan a ngi ci moo xam mooy làmb. muy animation ma ngay am ca terrain Oryx le 21 mai lay am ca tere Oryx. bon mbokk ñu ñëw ci programmation dimanche 22 Ahmed Dem bu Caaroy Géej ak Feu Rouge bu Bosco Sow ah combat combat Ahmed Dem ah ak Feu Rouge combat la waaw ñoom ñaar Feu mu ngi ci yoon bi waaw am na fulam Ahmed Dem dinay dem di def nii waaw des fois mu def ba nga ni dem na mu ñëwaat. waaw euh, ñoom ñaar daal yaakaar naa ne seen làmb war naa mën a neex mbokk yi Jet Li doon na bëre Jet Li ak Kayre 2 Serigne Modou Niang moo ko tëggoon ñoom Pape Diagne Seras ñoom ñëpp ñu ngi ci woon waaye ñu xool la fa xew te dellusiwaat Sabala moo nekk sunu ndeyjoor mbokk yi solo sunu càmmoñ attention la ilaaha illallaah Sabala dóor na solo solo daw na jël na tànk ba Sabala ak solo attention ñoom ñaar ñi ngi xeex attention solo wër na ko ndax da koy wër wër na ko da koy caxabal na ko maa la wax lii laa ilaaha illallaah daan na solo Sabala daan na solo Sabala moo daan solo Sabala daan na solo jël mbokk yi arbitre bi na ñaareelu combat bi kilo mburu la nekk sunu ndeyjoor mook Petit Mor Petit nekk sunu càmmoñ ñoom ñaar ñi ngi leewaatoo mbokk yi kilo mburu ak Petit Mor Petit Mor kilo mburu kilo jël na tànk bi kilo mburu Petit Mor kilo mburu wàcc na jël na tànk ba laa ilaaha illallaah war na ko ndomba yenu na ba ci kaw dóor na ko ci daan na ko kilo mburu daan na Petit xale baa ngi eh xale la Petit Mor xale eh, kilo mburu xale la xale la bu ndaw laa ilaaha illallaah yow yaa ngi xëppoo rek. waaw noonu la fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi waaw. tey bis bi lan la laaj xool nga stade bi ni mel. waaw bis bi dal la laaj. ndax buñ nee bëre suñ tuddee làmb rek boo nee jëli dañ la naan bërekat la. bu dee fit weesu nañ bu dee xeex moom kenn waxaalew mais tey làmb ji daa mel ni dam yee la laaj. waaw laajul lu bari. naxante la quoi. waaw yaa ma gën a xam mag laay bëreel bopp bee baax. waaw uh-huh. foog nga dox ak moom ci maañ. mais mag mu mën a bëree la. bu baax. xoolal drapeau yële. drapeau Gambie ak Sénégal la. message la daa am li si nekk.